Ousmane Sonko nga ne man dangin la waaw man Ousmane sama dangin jar na sama dangin jar la Ousmane dangin bii moo taxoon nga dem en plein couvre-feu jabar yëgul yaay yëgul doom yëgul ñëw fekki si ko di ko juutal ci lu ko neexul di ko watloo say coq ci lu ko neexul laajal say jabar laa la wax de sénégalais laaj leen jabaru Sonko yi ndax taatam bi amuñu réew yu ndaw bu ma wax loo nag te bu ma tax a décoller wakaam terce suite boo te su ma la waxee décoller wakaam laa la wax su ma jiitoo su ma wax ji su ma ci dugalee wakaam xam nga lu may wax ndax daa am ñu ma doon bëggoon di protégé boobu ba léegi mais gis naa ne yow doo nit bu ma wax loo te boo ma loo te su ma génnee dootul baax ci yow yàgg nga jàpp ay xale yu ndaw laa wax di leen def loo loo xam ne des yoo xam pas catholique du man kese te bu ma wax loo ndax am na ñu bëri yoo xam ne dama leen doon protéger comme wax la ne te gasa gasa lañ ci woote dinañ si ba mu ba mu mat